أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق منبع الأنوار جمجمة العوالم سيد الوجود عالم صلى الله عليه وسلم mbokki jul asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu del suwaat nañ suñu naafila bés bi ak seen mbokk Saas Habib Socé suñu kër gi suñu gaal 24 di nuyu baax di ziara xalif généraux yëpp di ziar tamit nag ki nga xam ne moo tax ngeen mën a gis écran bi mu leer naññ moo ne dégg son bi mu leer naññ macha allah muy xaalis Dóor mi ci technique bi ñoo ngi koy ziar bu baax di ko jaajëfal di ko wax ne ko rek incha allah ñu muñ euh, incha allah léegi koor gi jeex ñu ngi ci septième nuit incha allah di ziar bu baax nag ñi nga xam ñoo baaxoo émission bi di ko topp heure bu nekk bul fàtte sa naafile du jour daf lay andil heure bu nekk chaque jour sa nasiha boo xam ne day mën a ànd ak yow di la ci sa dund incha allah. la ma suñu naafila bés bi tey ñu ngi am li nga xam mooy six rakka maanaam six rakka lañu am juróom benn rakka juróom yooyu benn bu nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon euh, suratul kaafiruun yaa ngi ko ciy jàng sept fois la mooy kaafiruun mooy qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu ma ta'buduun wala antum aabidun ma a'bud ba mu jeex moom nga jàng sept fois gannaaw fatiha soo paree nga jàng sootul ixlaas muy qul huwallahu ahad sept fois kon sa naafila septième nuit lii la fatiha benn yoon one times après nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiroon euh, sept fois muy seven times après nga jàng ixlaas muy qul huwallahu ahad sept fois mu nekk euh, seven times encore gis nga kon lii mooy suñu naafila bés bi incha allah taala si septième nuit bi mbokk yi li mu nekk suñu naafila bés ñu dem suñu nasiha bés incha allahu taala lan mooy nasiixa bés bi nasiixa bés bi mooy li ñuy wax alkibru rëy ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax mu ne képp ko xam ne lu tolloo ak zarra muy lu gën a néew atum dafa dugg sa xol ci luy xeetu rëy nee na yow de bés boobu boo gaawul tuub loolu jeex xamal ne yowmal qiyaam doo mos aljana allahu akbar mbokk yi lan mooy rëy ndax yow mi may seetaan nga xam ko man ko moytu ba bul ci dugg ndax kàmb la goo xam ne ku ci xas tàbbi soo moytul rek ndeysaan mën na la labal safar yàlla na ci yàlla musal rëy nag yonent bi ko saxaaba laaj ne ko yaa rasulullahi diw sàngam de dafa bëgg tuwaletu sañsee defeeru naa macha allah bëgg daal àdduna ci euh, xeetu sañseeg yu baax yonent bi salaasam ne ko yàlla dafa taaru dafa rafet kon yàlla dafa bëgg lu taaru ak lu rafet inna allaha jamilun yuhibbul jamala gis nga waaye ñi mu ne leen rëy nag mooy batrul xaq ñi wax la dëgg nga bañ nit wax la dëgg nga bañ jàpp ni yow kenn waru laa wax dëgg diw sàngam waru ma wax dëgg diw sàngam bu ma ko war waru wax dëgg loolu dañ koy gis ci penc ci mbokk yi nit ko xam ne jàpp na ni boo ko ëppee alal waratu laa wax dëgg nit ñi jàpp nañ ni ku ëpp xam-xam waratu laa wax dëgg nit ñi jàpp nañ ku ëpp loo yëlif laa wax dëgg te dëgg de puso bu réer la mag mën na ko far waaye xale te mën na ko far ñu bàyyi xel ci loolu jaalana allahu min allazina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba suba ci beneen naafila